communication kuréel gu mag gi nga xamante ne si ne ñu ngi ko tuddi ADAP muy opérateur pour l'économique développement bu baax tey nag ñu amoon ay réclamation amoon ay naqar yoo xamante ne si ne gis nañ ko ci campagne bi bi mu commencé ñu ne woon dinañ ñëw réclamer ko. réclamation yi bi ci jiitu mooy manque de organisation boo xamante ne si ne ñu ngi koy gis depuis trois ans. te it ñu jàpp ne opérateur bi am na ci responsabilité wala commercant bi te fekk ne amuñu ci benn responsabilité responsabilité bi nga xamante ne si ne am nañ ko ci mooy état bi tey it bi ci desaat mooy contrôle économique bi parce que gis nañ ne bu ñu oto yi duggee ci àll bi ak suñu ndaw yi nga xamante ne si ne ñoom lañu ñuy ñuy dem ci àll bi di ñu jëndal gerte yi coono yi nga xamante ne si ne moom lañ leen di teg te coono yi mënta passé ci ne ne prix bi état daf ko fixé ci tàngam jëndal leen prix bi ci loolu te ñu xam ne ñun waa Touba augmenté wuñu prix wàññiwuñu prix ñun à chaque fois marché bi la ñu àndal depuis manque de organisation bi nag di am ci prix bi ba léegi mooy bi nga xamante ne si ne jox nañ autorisation Sinoa pour mu fii ci biir réew mi di jënd gerte gi ne Sinoa bi yàgg fi ndax mi ngi fi ñëwoon ci ay Ablaye Wade nekk ba en 2012 mu jóge fi amul benn manque de sonal sonal suñu oto di sonal suñu ndaw te loola nag la mu amee mooy gis nañ ne bi nga xamante ne si ne nañ leen autorisation pour ñuy jënd gerte gi bi ñu ñëwee dañ leen a yamale woon Dakar ñoom seeni partenaire nga xamante ne si ne partenaires yooyu ñoom ñooy wàcc ci terrain bi di dem di jënd gerte gi di leen ko yóbbul ñu ñu ciy gagné ci transport di ci gagné waat ci côté population bu Touba pour manqué de informel bi nga xamante ne si ne ci côté commerce yi booy xool transport rek moo fi am ak commerce laneen amu fi nga xamante ne si ne ci loolu lañu daan sukkandiku di ci jàpp mais tey gis nañ ne Sinoa bi mooy ñëwal boppam ci biir dëkk bi niñ ko daan amee nga xam ne Touba li ndingaraay daan def mbojj sol Taïba Niassène daan ko def mbojj sol loolu lépp ci biir dëkk bi la daan ñëw Saalum daan ko def Kaolack daan ko ñëw avantage boobu biir dëkk bi daan am lépp amatuñu ko te kan moo ñu ko xañ lu dul bi Sinoa boobu nga xamante ne si moo ñëw tey nag daan toog Dakar ñu ko fay fekk di ko jox suñu produit moom mu di ko jënd di ko importer di ko yóbbu moom moo ñëw tey fekk suñu ci biir terrain bi ëpp ñu ay moyens waraloon réclamation bi nga xamante ne si na amoon na ci pour nag état bi xam ne opérateur économique yi ak resp ak euh, euh, yi nga xamante ne si ne ñu ngi ci biir réew mi amuñu ci benn responsabilité responsabilité bépp état bi la ndax defe naa ne daaw ko ne xam na ne ubbi na ba jeex teel objectif bi nga xamante ne si ne moom lañ ne woon moom la ñu am atteindre ñu ko ren jii defe naa ne le 25 la ñu démarré woon ku demoon tey Sonacos dafa fekk benn oto te Sonacos saa yu masaana joxe date na dinaa commencé sàngam daanaka bu xool boo demee sax doom foo taxaw lan moo leen xañ loolu na ñi xam ne du opérateur économique yi du commerçant yi li leen ko xaj mooy manque de organisation boo xamante ne si ne gis nañ ko ci ci gerte gi te ñun nag dañu ay doomi gerte ñun xamuñu lu du gerte te na gerte ku ko tudd tudd Touba la tudd kafe ga ñoree ca Mali ñoree ca euh, Côte d'Ivoire ba ku ko tudd tudd Touba moo tudd gerte gi nga xamante ne si ne ma ñore ca Saalum ñore ca kaw Kaolack te ku ko tudd tudd Touba loolu ma barke la bu fi sëñ Touba def te ba addunay tukki du fi jógee te defe naa ne buñ dee xool ci bassin d'arachide bi li nga xamante ne si ne moom la ci Touba di produire ak li nga xam ne moom la ci Touba di def amul benn réew ci Sénégal benn benn benn gox boo xamante ni si ne ñoo ko fay def kon defe naa ne nag ñun kenn mënatuñoo génn ci yëf am nañ ci responsabilité ci bu baaxee am nañ ci responsabilité ci bu yàqoo kon bu ñu gisee ne ne yoon wii nga xamante ni si ne ci la gerte gi nar a jëm am nañ ci responsabilité pour taxaw di ko te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu baax ma daf daan wax na li nga bokk boo ko seetaanee ba mu yàqu kenn ëpp la ci responsabilité ndax ñun ay doomi gerte lañ dañoo juddoon fekk suñu waajur di ko liggéey ñu fas yéene cee nekk ba wàccee kook suñu doom te dara du ci yàqu te nag gis nañ ne manquement yi ci nekk ak problème yëpp seul responsable mooy état bi nga xamante ne si ñoo fi nekk li ñu koy wax moom mu jël ay matuwaayam ci insécurité bi nga xamante ne si ne am na ci ñun fii ngeen ñu fekk tey rek xool leen ku bu leen pare ngeen jël ngeen jël image yi booy xool ñun ñooy dem taqale suñu xaalis ñooy dem ci banque yi cautionné suñu alal ñooy dem lebi ñooy dem defi lu ne amul dara lu ñu état bi di jàppalee te tey defe ne gerte ak réew demee bañ ne jeex na waa Touba ko kenn jeexalu ko ku dul ñun ndax defe naa bu seen organisation xool li nga xamante ne ne moom la Touba di employé ci gerte amul benn bu koy employé ci Sénégal loolu waxoon nañ ko ministre de commerce bi nga ne si moo fi ñëw te moom bi mu ko xoolee nee na ne jàpp na ne li amul bu ñu demee bay gis ne ne lii seen bi fi ñëw mi ngi koy commencé yàq dañuy wax ne état bi na jël ay responsabilité ci ñoom responsabilité yi mu jël ci ñoom ne mënut a passé ne opérateur économique bi dafa war am semence bu baax pour mën ko jox béykat ñu jiw ko seen waa banque koy xañ ñun ñii nga xamante ne seen ay commerçant lañ huiliers yi ñu ngi fi nekk mënatuñoo segal diw gi ndax gerte gu seer te kenn yóbbeewuñu ko kudu seen waa bi te defe naa ne nag seen waa bi waxuñ ne na toog na tey loxoom mais mën naa war naa mën a ñëw ci biir terrain bi du tere mu am la mu bëgg huilier bi du tere mu am la mu bëgg di segal opérateur économique bi du tere mu am la mu bëgg pour mën a joxe semence bu baaxam mais nag état du Sénégal na xam ne ñi ngi xañ huilier yu Sénégal yi pour ñu mën a segal seenug diw ñi ngi xañ opérateur économique yu Sénégal yi pour ñu mën a am semence bu baax bu ñu joxe te kenn waralu ko loolu seen waay yi fi nekk li mën a jur mooy dem nañ ba tey gerte réew mi kenn bayatu ko loolu moom ci lu leer la dem nañ ba gerte gi nga xam ne moom la réew mi bay jógeetul ci biir réew mi léegi gerte Guinée gi la ñu bay ak gerte yi nga xamante ne si ne day jóge Mali di ñëw lan moo ñu ko xañ mooy gis nañ ne Chinois bi bu dikkee première trace lay def bi gën ci réew mi lay jël deuxième bi la ci topp troisième bi la ci topp léegi nag bu fekkonte ne Chinois bi bu ñëwee respecté ne accords yi nga xam ne moom la président de la république joxe parce que ñun marché bi lañu àndal bu chinois bi dikkoon ne gerte kemb xott gi nañ ko jënd deux cent gerte kemb gi nañ xool ci buñ ko produire ci lan la mën a jar ñu jënd ko ci loola defe naa Sonacos dana am opérateur bu am am waaye nag bu fekkee chinois bi dañ ko sikkiri moom dañ ko jox dooleem jox ko pouvoiram mu wàcc ci biir terrain bi jël xaalisam def ci ay saagam buñ ne ñoo jënd ñu juróom fukk mu jënd trois cent dara du ko ci fekk ñu leen juróom fukk buñ demee jënd fa ak ay sanctions yu métti bi produire gerte gi la nga xamante ci ngeen daan dundee seen i doom di ci dundee te Touba ku ne xam na ne amul géej Touba ku ne xam na ne amul usine Touba boo fi ñëwee tey bu place fi nekk di produire gerte yi tëjoon gone yi ji wala ñu sàcc ji wala ñu taxawal wala ñu def leneen kon defe naa ne état bi moo ñu war a mën a ci lii lim ñu ci jàppale nag mënut a passé ci ne seen bi na mu ñëwee woon en 2007 ànd kook ko ak moom ci amuñu lu dul gerte loolu daal lañ ne woon tey dina ñëw réclamer ko muy loo xamante ne si ne métti na ndaw yi dëkk bi métti na opérateur économique yi nga xamante ne si ne ñoo ngi ci réew mi ba mais métti rek parce que man dama man la ma waxoon laay waxaat fii man damay wax ne man sama oto dama ko daan jox 5000 francs ci frais léegi 20 000 la ñuy joxe benn 5000 30 000 te kenn du ko lekk lu dul police gendarmerie ñoom rek ñoo koy lekk contrôle fukki fu poste sub douane masaana nekk léegi fukki poste soo fa nekk boo masaana jóge fii dem Kaffrine doo joxe tees benn tees ngay joxe boo jógee fii jëm Kaffrine fukki tees ngay joxe douane boo yegg joxe 2000 francs gendarmerie boo yegg joxe ñeent ne buñ ñu mënut a sampale usine suñu ndaw yi di ci liggéey mënatu ñoo jàppale nañ ñu bàyyee gerte gi ñu yor ñu xool ni ñu ko yaxanale ñun ba ñu mën cee ànd ak suñu doom yeeg suñu rakk yi fi nekk di ci liggéey comme ni ko suñu waajur yi doon defee ñu félicité président moom it euh, ci prix bi ndax it ku ne xam ne nit ki bu sañoon buy dund day évaluer day yokk te prix bi fekk na ko ci deux jëlee na ko ci deux cent dix ci campagne deux mille dix neuf deux mille vingt indi na ko ci campagne deux mille vingt deux mille ci deux cent cinquante francs gannaaw nag bu ñu ko santee ci loolu ba pare leneen li nga xamante ni si ne moom moom lañ ci tegaat mooy euh, maxtaar nañu nañu xam ne ñun amuñu lu dul gerte ñun moom la ñu am boo gisee tey ñu waral ñu ñu def lii prix bi ban ko joxe yàgg na Touba ndaw ñi fi nekk ak mag ñi ñooyam xamuñu luy yàq luy defar la ñu xam gerte gi nga xam ne moom la xam nag boo xoolee dix yi njëkk a judd ci Sénégal ci dëkk bi la ñu juddoo te boo dee xool li ñoree ci biir réew mi lépp quatre vingt pour cent yi Touba gii la jëm si loolu nag lu sëñ Touba ñaanoon la tamu am ñun nag bu ñu gisee ne loola ma ngay yàqu te état bi ñoom ñooy responsabilité danañ toog fi réclamé ko parce que ñun bu ñu ko jëndee cent franc bu ne jënd ko cent franc jënd leen ko 200 ñu jënd ko 200 ñun nag ñaar rek la jaay chinois bi jaay moom la jaay chinois bi bu augmenté prix bi bañ koy jaay amuñ responsable ñun bu mënoon a jënd kemb 1000 francs ñu jaay ko parce que ñun ay commerçant dong la ñuy wut chinois bi nag état bu Sénégal moo ko mën na ko jëndal téeméer moo ko mën na ko jëndal 1000 moo ko mën na ko jëndal jaay ko 1000 francs dañu koy def moom nag na jàpp ne bu ñàkkee daaw ñàkk benn opérateur xañu ko ko benn commerçant